waaw jaaxle nañ parce que doomu aadama xamul ëllëg moo tax lépp lu mu nekk tey rek bu buñ ko nekk ci li nga nekkoon ni da koy changé te xamul ëllëg moo tax muy jaaxle nit dafay jaaxle parce que xamul ëllëg loolu tax ñu jaaxle ndax fii lañ nekkoon depuis des années depuis des années des années yàgg fi lool di fi daan suñ doole yor fi suñuy njaboot yor fi suñuy waajur yor suñu famille di ci réglé suñuy problème di ci dund suñu dund pleinement ñu xëy xëy ñu ne danga nga fi jógee danga nga jaaxle ndax doomu aadama xamul moo tax ku xamul buy tuxu fa force mu jaaxle loolu mooy problème bi waaye nag ñu ngi def ñu ngi wàkkirlu ci yàlla waaw tawakkul ala allah commerçant yi kenn wu leen ko jàngal ndax da ngay gis ku jógee Chine jënd conteneur bagage 30 millions 50 millions yàlla la yaakaar pour mu jaayal ko ko kon nag tawakkul ala allah moom kenn waru ko jàngal ab commerçant. waaw kenn war ko jàngal au commerçant dañuy def tawak dañuy tawakkul alallahi ci yàlla mais duñu def tawaakul mooy rek jë jëlee nañu fi ñu ne ñu ne yàcc yàccaaral ba pare naan dana baax loolu tawaakul la mais nag dañu def tawakkul alallahi incha allah fuñ mënti nekk bu dee fa ñu yóbbu la bu buñ fa mënta nekk danañ dem utali suñu bopp feneen ndax ñun xaaruñ lenn ci kenn xaaruñ lenn ci kenn mosuñu demander liggéey ci kenn mosuñu tàllal loxo ci kenn benn ministre wala benn président wala benn député mosul gis benn commerçant bu ñëw sa kanam di la di di di la di taxawaal sa kanam non non chaque jour bu ñu xëyee dañuy ñëw liggéey dem dem dem ñibbi waaw amuñu problème amuñu problème ak kenn tey nag état ñëw na ne day defar marché bi d'accord nañ ci ak moom mais nag façon bi mu ko defee rek moo ñu moo ñu neexul façon bu mu ko defee moo ñu neexul par exemple julli ko julli tabaski ak ni julli tabaski réyee mooy mooy fête bi gën a mag Sénégal mais bàyyil ni ñu ñu dem julli ji tabaski une semaine nga ñëw leen leen seen bagage yi mais ñëw suuru julli lañ fi ñëw dagg couper couper courant bi mu nekk mbir mu ñaaw quoi kuppe courant bi jaru ko jaru ko jaru ko ñun ay sénégalais lañ décision yi ñu koy jël ci suñ ñun ay ay sénégalais lañ mais lan moo ci jar yenn yi jaru ko. waaw waaw waaw dama doon wax ak place bi place bu gore place la bu gore. xam dafa am benn sëriñ Cheikh Ibrahima Niass doon ñaanal boppam ñaanal famem ñaanal njabootam ñaanal ay ñaanal ay taalibe ba pare ñaanal makkaan ñaanal espace mais tey nag tey laay door a dégg bayti boobu Cheikh Ibrahima Niass waxoon waaw ñaanal naa sama bopp ñaanal naa sama samay famille walil makkaani bal walil zaman tey nag laa xam ne makkaan ak zaman am nañu importance ci nit ki makkaan ak zaman makkaan bi makkaan la bu amoon importance ci man makkaan bu amoon importance ci man ak sama famille tey nag maa ngi koy quitté mu naqadi ma trop vraiment maa ngi quitté place bi vraiment mu nekk lu ma métti lu triste quoi ci man tey maa ngi mel ni ku am sama doom ñu ne ma dootoo gisante ak moom ba abadan maa ngi mel ni ku ñu ma dootoo gisante ak sa yaay ba abadan parce que place bi tey mën naa cee mën naa cee wax lu benn waay waxoon ba mu demee ci àll ba benn waaye dafa àndoon ak dafa andoon ak ay mbokkam ñu dem ci àll bi wër ba sonn amuñ ndox muñ naan ñuy xaar dee ñoom ñëpp di xaar dee ñu doomam yàgg na ñu ne tëll ci benn garab garab gi am ndox mu sedd guy waa ji caalik ba wëy garab gi wëy yoo xam ne yow boo ko jàngi sa da jooy nee na bi mu wàccee ci garab gi garab gi daf ko tàpp kom kom yaay buy tàpp doomam xalal naa dahu fahanna alayna anul murdiati alal fatimi wa arshaqana ala samai sulala yarudu ruha lil qalbi saqimi yasuddu shamsa anna waajihatna fa yujibuha wa yusanu linnasimi wa yuraahu ansaahu xaaliyatal xasaara fa talmisa jaanibal aqdi nasimi bu ma ko firee vidéo bi day gën a gudd mais nag place bi maa ngi koy tàggu ñëpp a tàggu seen place yi mais mu nekk moment bu triste quoi suñ maam yi fi lañ jaaroon suñ suñ suñ papa yi jaar fi suñ nijaay yi jaar fi suñ mag yi jaar fi ñun ñu ñëw nekk fi suñ rakk yi di ñu fi fekk ak suñ jarbaat yi bi jur na ay milliardaire ba taay place bi jur na ay millionnaire ba taay immeuble yu bëri yooyu gis Dakar Sandaga moo ko Sandaga moo leen moo moo leen tabax Sandaga defar na nit ku ne Sandaga defar na nit ku ne tey nag Sandaga googu état nee na da koy defar état nee na da koy defar joxaan ñu ah waxu état la waxu état la waaye daal ñu ngi ñu ngi xaar waaw ñu ngi xaar nañu respecté seen kàddu ndax ñu respecté nañ suñu kàddu fii bu ñu fi ñëwee suba ñu fekk sax port jël nañ suñuy bagage jël nañ suñuy porte dajj nañ même suñuy eh, bagage lépp amul dara lu fi bàyyi bant yi sax din nañ ko lépp luñ mën a jël rek jël nañ ko waaye nag moment bi c'est vraiment dafa dafa dafa xaw a nekk gàcce ci ci état état muy jël di bu mel ni ci peuple am di ko jël ci moment bi dafa doy waar quoi parce que léeg mbir day ñaaw mais defin bi mooy ñaaw. léeg-léeg tamit nga jël benn décision moment bi moo koy ñaawal quoi moment bi dafa ñaaw quoi man kenn xamul ban at laa gëj a toog sama kër julee fa tabaski ñàkk faa julee tabaski sama kër kenn nekku fa amul rakk bu góor amul mag bu góor moi seul man maa fa nekk sama xar sama xaru yaay ay jàmbur ñoo ma ko ñoo rendil ma ko feesal ma ko dafa ñaaw quoi parce que mënu ma fi bàyyi sama bagage yi dem Saalum di julli ji non parce que bagage yi moo tax ma mën a am xaru tabaski moo tax ma mën a jëndal samay famille lu ñu feetoo kon nag mënu ma fi bàyyi bagage yi naa bàyyi place bi ndax état nee na da koy jël mais bagage yi nag moom danaa ko jël ut fu ma ko dugal ñu ngi ñaan yàlla nag di ko wax di wax waa marché bi yëpp ne leen yàlla am na beneen yàpp bu dul géej yàlla mi barkeel màkka ba fa yonte yàlla ibrahima di dem xalab kerte ndeng dara nekku fool bi waa waadin xayri si saren inde baytikal muharrami yàlla mi barkeel madina si ba fa bàññes dem xalab kerte ndeng loon xàll bu wow koŋ ñax ak i gajj yàlla mi barkeel Touba Mbacke ba fa sëñ Touba di dem y'avait rien dara nekku foon yàlla mi barkeel Tiwaawan yàlla mi barkeel yàlla mi barkeel yàlla na yàlla barkeel fu ñu jëm fépp fu ab sénégalais jëm di fa liggéeyal yàlla na la yàlla may loo dundee yàlla nee na laajut ñu jaamu yàlla ak suba kon ñun tam buñ ko laaj wërsëgu suba li ñuy yàlla li ñuy li ñuy laaj yàlla mooy jaamu yàlla ak tey mooy wërsëgu tey ndax moom jaamu yàlla ak tey la ñu laaj ñu ngi ñaan yàlla fépp fu ab sénégalais ne rek yàlla na la yàlla dimbale mais nag na état suñ état yi nañuy xoolaat yenn décisions yi ñuy jël ci seen kaw peuple yi parce que des fois dafay ñaaw dafay dafa ñaaw quoi dafa c'est c'est dafa ñaaw quoi vraiment maa ngi jégalu nga baal maax ok merci beaucoup